waaw dama ñëw comme sénégalais yëpp rek ñëw euh, euh, euh, teeru ci président Abdoulaye Wade gis ngeen fi ñu jaar yëpp depuis AIBD ba fi ñu yegg si gis ngeen les déferlantes yi am parce que sénégalais yi ñaar moo leen dal benn bi. moy nek dañu wara a suqaliwaat suñu démocratie té loolu ci loxo Ablaye wat la nek benen bi moy il nous faut une alternative à cette alternance moo ñepp ñëpp tay ji wan Macky Sall ne ko limu nara def ci réew mi duñ ko ci bàyyi té fii ak ñu dem ci 24 février Inshallah taala dañu fexé ba loolu gëna sax ci réew mi président Ablaye wat nak mi ngi ñew ñepp téru nañ ko mais ñun tamit c'est à nous intelligemment de discuter avec lui pour que mu ñew ñu am benn vote utile

il y a une évolution au ci et dans les heures à venir defe naa dina feeñoo Inch'Allah.